salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum waa Sapin TV Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di jox seen wàccuwaay fépp waaye ma ne ci àdduna bi ñoo ngi lay nuyu fii ci Sapin TV Sénégal nga xam ne waa Sapin TV Sénégal ma leen nuyu di leen siyaare pour ngeen jàllale leen ma samay live bii nii pour maam tey jii ci après élection di lundi comme ma bëgg a wax tuuti ci élection yi xam nañ ni élection yi jàll na ci jàmm nit ñi woote nañ génn nañ woote nañ ci jàmm peuple Sénégal wate na ci jàmm yéen ñi nga xam ne yéen yor suñu ay résultats ñëpp xam nañ affaire ni mu demee ñëpp gis nañ résultats yi lim ñu jox mooy lim ñu jox mooy deuxième tour dafa war a ndax Macky Sall na war a xam ne moom deuxième tour ci la daaneeloon Ablaye Wade te ba mu deuxième tour Ablaye da ko nunguloon nungoo dem deuxième tour jotaguñ yenn résultats ne deuxième tour dina am diw gagné na wala diw gagné wul dégguñ ci yenn résultats waaye lépp lu mën a xew ak lu mën a xew rek. buñ taal réew mi buñ taal suñu réew bu benn personne tax intérêt tax ñu bëgg a taal suñu réew te lu boo déggee ñu ne luñ taal suñu réew mooy bis buñ ne deuxième tour amul rek bëgg a jox victoire bi koo xam ne li koy laaj génnee ko amu ko te maanaam ancien premier ministre Sénégal ancien premier ministre Sénégal bëgg a joxe victoire ngir intérêt boppam ñu dénkuñu ko suñuy élection citoyen comme ñun nekk Sénégal comme ñun nekk ancien premier ministre nekkul premier ministre Sénégal jamono ji ancien premier ministre la pour pourquoi bu bëgg a génne résultat ay résultats yi boppam pour maanaam intérêt boppam ñu ko nangu population bi duñu ko nangu ñun nag suñu siis siis moo ñu fi nekkal waaw ànd kenn na ànd askan wi ànd ak Sénégal bi ëpp li ëpp ne mooy yoon nañ ko doxal te bañ a xool intérêt doomu aadama su fekkee bañ bëgg nañ bañ a taal suñu réew bëgg nañu réew mi nekk ci jàmm buñ buñ nañ teg élection yi ci yoon. ñu waxtaane ko xool li war a am ñu teg ko ci taabal yi résultats yi am ñu génn ko teg ko ci taabal yi bu ñu ko defee jàmm dañ def ñooyu waaye bu ñu bëggee jalkati loi bi bëgg force force nañu parrainage ñu bàyyi ko ba force ñu cinq ans nañu cinq lay def forcer ñu def sept ans ñëwul forcer ñu parrainage tey mu bëgg forcer waat élection yi duñ ko nangu. yéen ñi xam ne yéenay siis siis yéenay àtt suñu réew yéen leen teg suñu bokk yéenay suñu kaaraange yéenay aar réew mi teg leen ko ci yoon teg leen ko ci yoon ñu ngi leen koy ñaan waa Sapin TV Sénégal bëgg naa tamit ngeen jàlleel ma live bi ma mën wër àdduna ndax dafa maa ñor te ñu ñu ngi daal suñu réew nañ nañ ko teg ci yoon teg ko ci fair play ndegam citoyen sénégalais yi génn nañ wate ji nañ te ñoom ñoom ñoom ñoom lañ doon xalaat ñu indi violé te defuñu def nañ ko ci yar ak teggin ñoom it nga xam ne ñoom lañ teg suñu bopp réew ñu war a àtte suñuy droit àtte suñu loi nañ ko teg ci yoon nañ ko teg ci yoon waaw nañ xool li yoon li yoon wax ñu teg ko waaye ala kulli àllin moom lii lii Sénégalais yi gisaguñu il faut deuxième tour war naa mën a nekk il faut deuxième tour war naa mën a nekk waaw waa Sapin TV Sénégal nag bëgg naa ngeen jàlleeloo samay live